بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ñu continuer waxtaan wi kon dafa mel ni alkalima li mumathil xalif Cheikh Mountakha Mbacké ñu joxe seen tur ci turu sëriñ Ahmad Rafahi Mbakke bisimilah. bisimilah rahmaani rahim. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi noo ngi leen di nuyu. di jottali kàddu yoo xam ne sëriñ Ahmadul Badawi. moo ma ko sant ci ndigalul sëriñ Muntaxa mi nga xam ne moo ko fi yabal ak sëriñ Muntaxa mais moom sëñ Mamor Pakala ak ñiim àndal ñépp sëriñ baa ngi nuyu nuyu di ndokkeel woroom xam-xam yi fi daje yépp ak dongoy daara yi ak ñooñu alxuraan ñépp di leen xamal ne nag sëriñ bi su yónnee ci lu ni mel jamono ko tënk waaye la daloon génn góor moo koy dal dafa amoon benn dànn dànn nag mooy ab jamkat am na ku ma ko doon jubbantil sax naa ma ndandi ma ne ko ndandi mooy baykat dànn boobu nag da doon liggéey la mu doon liggéey ba ak mag dab ko sëñ bii toog ci sama ndeyjoor jàngalekatum nawu la nawwu mag ñi dañ daan jàngale nawu naan ma di ko def joo gis mubtada la mubtada nag boo ko xasee ba teg bët lu mu yàgg-yàgg danga tase xabar bi mu koy def ba ak mag dikkal ko mëntuta jóg mu tëdd génn guddi dégg kor kor ji bari lool ci wanag bi mu ne nañu ma nimmikul ba xam lu mu ñu ne ko naaxum naat la de mu wax ca kaw ñépp agsi sëriñ bi lu mu ñi ne ko góor gi lu mu mu ne sama mëq doom gi laa bëgg ngeen indil ma ko ma jëflanteeg naaxum naat boobu yi ñu ne ko waxal li nga ci bëgg rekk mu ne xam naa ne li ma ci bëgg lépp man ngeen ko ndax jàngal naa leen ko ba ngeen wattu ko waaye nag dànn bu mel ni man e, xool ba mu ko ci biir naaxum naat mu soxub sox téq mu daanu ci seen biir yenn yi na lasiim yenn yi bëgg a jóg nee na foofu yukk-yukk a ngi fi joo xam ne wutali naat ya as mbànneex soo xam ne kenn mënu ca wutu kenn loolu nag mooy dal sëriñ mun Muntaxa ci lépp lu baax lu mu yëg ñu yëgal ko ko walla mu dégg ko bu dul woon xat-xatu jamono nii sëriñ lu def ak ñi moo àndal ak sëriñ Ahmad Badawi noonu lay def ndax ñi ko xam ñëpp noonu lañ ko mas a xamee naka jekk nañu ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko mi ngi ndokkeel alxaaji sëriñ Seck bu baax ci lii nga xam ne moo nu fi dajale tey muy lu am solo ndax bokk yi jiitu jaar nañ ci léegi jàng alxuraan ba tari ko am na jàng alxuraan mokkal ko am waaye wattu alxuraan it am wattu alxuraan nag yoon wa ca jëm mooy lu dajale fii tey man mii am naa sama maam joo xam ne moo jur sama ndey sëriñ moo ko ko firil bi mu ñëwee ci sëriñ tuubaa ko ne noo def ak téereeb suñu borom bi mu ne ko mën naa koo waxta duma ko xool mu ne ko yow mokkal nga ko mu ne ko moo ne mën naa koo wax bind it te duma ko xool de bopp ko mu ne ko yow wattu nga ko kon bind moo fi mooy wattu alxuraan man koo tari mokkal ko waaye wattu ko nag mooy bind ko ñun ñi ñëpp sax bu ñu fi fekkee alxuraan bind ga ñu ko bind moo tax ñu fekk ko fi li ko gën a tënk dañuy dégg ñu ne yàlla moo bind jaam ñi moo bind mbindeef yi duñ ne yàlla moo wax bindeef yi waaye moo leen bind lañuy wax ba nga mën leen a xàmmee kon lu am solo la loo xam ne euh, du dem ba masa dang daay waaye nag lu mat a joyanti la ci suñ jamono delloowaat ko ci daara yi ndax ñiy tari bari na lool waaye ku jaar ci daara te jógee gu ca dana xam ne nit mën naa tari loo xam ne mokkalu ko da koy takk bu fekkee kii tari moo ci war a sës te jàngutoon te te xut mu yàpp lool jàngalekat ba bu ko wëree ni moo ciy topp dana fexe ba wax ko rek am jàmm waaye loola lu koy topp ba faw la saa bu agsee fa mu takkoon dana xam ne takk ba dëgërutoon takk ma mën naa tekki ko kon li fiy bàyyi alxuraan mooy bind ko ñii nag di benn benn yuñ tudd ñu xam seeni tur ñoo feeñagun waaye lu mu gën a jëm kanam da mën a gis kaar kaar gannaaw ay wolof lañuy ñuy waxal lim bu takku boo xam ne maa ngi koy tàmbalee ci ñii toog fii rek yàlla na yàlla yéem dolli ñu ngi ñaaxaat daara yépp su fekkee bëgg nañoo bokk ci ñiy wattu alxuraan ñu dekkalaat bu baax a baax a baax bind ndax yoon wa ca jëm nag daa yàgg te nit ñi dañoo xaw a yàkkamti am na ko fi mosoon nekk njiitul réewum senegaal Euh, jëluma ci misaal jëluma ci moom misaal sax waaye la mu ci sénégalais daf ne sénégalais dafa yàkkamti ba tàngal sax bu ko sexee mënu ko muñal mu seey ndànk-ndànk waaye léegi tey nga dégg mu a kuruj kuruj ndax yàkkamti waaye ñuy wax ne ñi nga xam ne dañoo yor ay daara di jàngale alxuraan bu ñu topp yàkkamti wayu jur yi leen jox ay gone bëgg diir bu gàtt ñu yóbbu leen ci leneen tax ñu fexe bañ na tari nañu rekk ndax sëriñ bu mag bi sëriñ Tuubaa nee na gisut ci kaw suuf lu jar ndaw loo xam ne ku ko taxaw mu mokkal mu mën alxuraan man koo tari mokkal ko wattu ko nee na gisut ci kaw suuf lu jar seetaan ko ba mën koo tari mokkal ko wattu ko kon bokk ku xas bay jël ci gone waxtu ngir bëgg a def ci moom alxuraan na fexe ba mu dëkk ci moom ñii nii xawma ñenn waaye ñii ma gis moom te xam leen bu baax a baax xam naa ne alxuraan dañ leen joxoon ku ci toogoon ñaar fukki at xooloo xoolaatoo ab téere du too ko fàtte la leen ko may mooy dañ ko doon jàng di ko mokkal di ko wattu wattu ga mooy di ko bind di ko bind di bindalaate kon mubaadara bi nga xam ne alxaaji seeni sekk def na ko rikk nañ ko jotlante joxlante ko ba ni ko aw mag sàmme bañ fekk ko fi ba moom mii doxu ci doxiinu rekk dem leen maa ngi ñëw waaye daara ju baax kaar moom la yor ab diir xelam sogo dal ci taxawal lu ne mel gannaaw seetlu bu yàgg ci ne ñi ngi tari bañ na mokkal na waaye nis tuuti mu tàmbali ko fàttewaat ndax am na ku ko fi tàmbali woon a junj nit déglu nañ ko kaamilu lëm lépp la bëgg a wax rek mu taalee ko raatataat ba mu àgg te du mën a bind aw loolu am na déglu nañ ko mu tari ko it toog juróom benn weer xamutut boo nekkoo ko ma fii mu ne waxuñ ma woon lool kon boog buñ ci wut kese kese kese lu ñuy yóbbu waaye nañ ci wut ngërëmal suñu borom te dara rawu def ko ci ay dënn defin woo xam ne du ci jógee ba faw kon sëriñ bi maa ngi gàttal foofu kàddu yi di leen sant ndigal a ma dab rek waaye defuma ku sori ci lefum wax ak mbooloo ndax kersa gi moo bari waaye ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla ci barkeb alxuraan bi ñu fi dajale Euh, tànk yi ñu ñëwee ak yi ñuy dellu yépp suñu boroom def ko ay tuyaaba te fay ñépp ñuy yëngu ci alxuraan ak di jàppale ñooñu alxuraan ak di taxawu alxuraan te kon maa ngi koy yemale foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, jërëjëf sëriñ Ahmadou Rafahi Mbacké yàlla na suñu borom tabaaraka wa taala doole laa fay aw yiw yokk xam-xam bi te barkel ko di siyaar mboolem njabootu si Ahmad Xaadim gi fi nekk ak ñi fi nekk di siyaar mboolem jullit yi maa anta bi ni'mati rabbika bi majnuun